mooy li gën a kawe ci li ci def xayrukum la xadis bi wax mooy ki nga xam ne man ta'allama alquran wàllama kon ci mooy ki nga xam ne gannaaw bi mu góorgóorloo ci boppam ba fekk mi ngi jël taam di ko jàngale di ko def ci ñeneen kon loolu dund la bu ndaw ñu ñaan yàlla mu oyofal leen jàppal leen bu mag ñooñu nga xam ne ñoo sañ ko lii ñu jaar ba lii am yàlla may leen ngeen mën a teg foofu seen tànk wala sax ngeen am ci lu kawe loolu parce que ndaw ndaw ndamu islaam la ndamu Sénégal la ndax euh, nit ñi suñ leen defaree rek ñu mën a doon citoyen bi ñu soxla kenn ku ne ci diine gi mu gëm ndax diine valeur kese la kenn ku ne ci diine gi mu gëm buñ ko ci defaree bu baax mu doon citoyen modèle parce que dina xam fu mu war a xam fu mu war a teg tànkam xam nu ñu li ñu li ñu lu ñu araamal lu ñu sib mun a xàmme luy farataam ak luy sunnaam ak luy afdal loolu bu ñu ko defee ci nit rek defe naa nit kooku dina amal njëriñ société dina xam fu muy yem ak lu muy def kon ñuy euh, am mbégte teew fii ndax fii dañ fi am cër ndax daara ji naam sax bi nekk fële sud laa gënoon a miin ndax fa doon fréquenté bi euh, may nekk étudiant damaa ñëw ci dëkk bi nekk étudiant comme diine nag soxaloon nañu trop ñu ne bëgg nañu li nga xam ne mooy li ñuy bàkkee ndar muy dëkku diine la dëkku alquran la dina kon dinañu fexe ba lañ ci amoon as tuut ñëw yokk ko fi yàlla boole woon ñu ak kenn ku tudd Oustaz Tine Aboubacar Tine yàlla boole woon ñu bu daan ñëw université di ñu seet si mane ne ko Oustaz man de damaa bëgg ñëw di jàng si mu ma kon dangay ñëw daara ji donc saa suñu amaan weekend ay yu fortement yi ñu dañ daan ñëw ci daara ji ànd ak xale yi damay fàttali ko xale yi dañ ma daan reetaan su ma ñëwee laal sama ndëstop ñu war a tari nag léeg-léeg bi du xaw a mokk xale yi di ma waaye ñoo am fi ñeenti at yoo xam ne toog fii ay vacances yoo xam ne looloo ñu taxoon a toog fii Ndar ñu waroon a mën a ñibbi ba ñu dëkk euh, ñu abal ñu fii benn école bu nekkoon entrée sud école rek ñu taloon fa saa suñu xëyee dem daara ja am nañu portal waaye mu amal ñu njëriñ trop ndax maa ngi fàttali premier jour ma ñëw ci daara ji ñu ne ma ñëwal andil benn kay ma ne waa lu ñu may doyee kay man kii ma téere bi ma ma jàng ma ñëw ñu ne ma ah yëpp ngay jàng ma waaw foo toll ma xaw naa sori jàng rek ci dem ñu ma tarit ma commencé ne la dina kàll wax na laax jàng traditionnel rek ma ne ñu ne ma déet ci aaya bi nga wax rek def nga ci lu mat juróomi donc il faut ñu reprendre base yi nekk ci kayit loolu donc maxaarijul règle tajwid yëpp fii laa ko jàngee ci daara ji ba tey su ma taree alxuraan ñu ne ci oustaz bu fekk loolu def naa ñaari wala ñetti weer yoo xam ne loolu rek lañ ma doon reprendre règle tajwid yi suuru sàkkina ngay reprendre di reprendre di reprendre ba tey yàlla may ñu ñu mën a am loolu di tari alxuraan boo xam ne jàpp nañ ni tollul nag niveau oustaz Diop waaye xaw xaw naa set tuuti. est ko rawoon foofu kon kii suñu kër la tamit. wallaay suñu daara la. Mm-hmm. ndax foo portaatoo rek. Mm-hmm. ci alquran. foofu moom après sa cosaan lay bokk ko nga koy am encourage. jamono jooju fële Xasan moo fa newoon. seen jiw dégg naa léegi mi ngi booru. Dubaay Dubaay bàyyi ma papa la. waaw moom moo fa newoon nag jamono jooju. loolu nag frappé woon ñu ba. maa njëkkoo a organisé li ñu tuddee nuit du Coran université Saint-Louis ma ne woon nag dama bëgg ñu jël ay daara andi xale yi jamono jooju benn ndong bu ne woon fële dama ko takkoon trop mu takk ma Dramé Dramé la santoon njëkkoon dëkk ko woon Saalum. Dramé waaw mu doon jàng trop trop trop trop. donc ñu def organisé woon nuit du Coran foofu. ci terrain parce que moom mii daara jooju. incha allah daañu ci ñëw daañu ci ñëw donc ñu organ mu doon réussite bu mag mag nag. ñu def ko ci terrain basket université. ñu amoon ñett wala ñeenti daara yu bokkoon na ci. defe naa drapeau boobu sax moo gagné woon commission bi. daal euh, loolu moo ñu boole ak fii. ñu amoon tam yu ñu ci frappé woon maa ngi fàttaliku li may wax nii année 1997. 97 defe naa ñu fi bëri juddoo gu ñu euh, mu taw benn guddi taw bu fort. man foofu ma dëkkoon entreprise benn saa ma génn taxaw booru nuyu ci balcon bi ndeysaan rek te daara ja ndox ma def faa dugg ba fees ñu génne xale yi di leen jële foofu di leen andi fii loolu nag dafa ma marqué woon daf ma marqué woon trop li ma gannaaw li ma marqué woon ci daara ji nga xam danga nga daan xëy nekk xale yi suba ba 18 heures te du ñu añ ndékki la ñuy lekk xaar ba 18 mm-hmm. bu ñu paree ñu doog a fekk bool nit ñi añ ma gisoon lool nag loolu bokk na ci li saxal suñu yéene ci euh, bëgg a jàppale daara moom ci suñu yéene la bokk parce que jàpp nañ ni euh, ñun dëkku gëm-gëm lañ loolu yàllaa ko def ay mag liggéey ci lu rëy rëy rëy ba tey ñun ñëpp ñu mën a judd nekk ci jullit mu am ñeneen ñoo xam ne beneen diine la ñu bokk muy diine catholique waaye fii dëkku gëm-gëm la dëkku gëm-gëm nag boo ko bëggee def nit ñi da nga leen di jàppale ci seen gëm-gëm parce que nit mënoo fexe ba tàqale euh, euh, partie temporelle am ak partie spirituelle am boo ko defee rek nit kooku amatul njëriñ mhm. su doon feneen ñu gëm ci loolu lañ leen di jàppale ñun la ñu moo tax ñu am ci yéene bu rëy rëy nañu am ay programmes spéciaux yoo xam ne dañuy jàppale daal parce que sénégalais boo jël nag ku ci gën a sàggale ne ba mel ni man bëgg na doomam su dul sax dara waaye grande vacances ñu ne yóbbu leen ci oustaz bi nekk ci mbokk koñ bi mu am lu mu far ba mën a jullil boppam kon amul sénégalais bu xam ne bañ na daara wala contre na daara kon ñu jàpp ni loolu ni ñuy doolelee ni ñuy prévoir ay budget di ko yóbbu ci santé bi mu baax taw parce que nit ñi dañu war a faj di ko yóbbu ci njàng tubaab bi baax na trop parce que nit ñi dañu war a jàng di ko yóbbu ci leneen ak leneen mbay beeg yooyu noonu la ñu war a uti boo xam ne pour suuxat daara la parce que nit ñi soxlee faju ci seen yaram soxla jàng soxla lu ñu lekk ak yooyu noonu la ñu soxlee ñu defar seen bopp loolu daal euh, moo tax mbégte bu rëy la ci ñu teew euh, muy suñu kër di di di profité di soññaale dongo yi ñu góorgóorlu ci njàng mi parce que am nañu chance boo xam ne lu bëri ci ñun amuñu ko ñun dem nañ ba am yenn âge jël suñu initiative dem bindu ci ay daara ci jàng mm-hmm. ñoom ñu am chance seeni waajur teel leen jàpp ne dem leen ci daara ji li tax ñu sam saxal daara suñu kër ñun dama ne samay doom yéen da ngeen am chance bu ñu amuloon ñun foo ngeen góorgóorlu a mokkal alquran parce que toujours loolu lay saay ñu a yóbbu ñu gën a góorgóorlu ci yooyu te bu mu leen yàqal dara nag seen mbirum àdduna mooy bu jàng leneen joxee da ngeen ko jàng bu baax loolu ñu leen ci soññ bu baax di leen gërëm di leen sant di di gërëm ñi fi nekk ñëpp di jàngale xam nañu mbir mi nu mu mel xam nañu jafe-jafe si nekk parce que nu mu tuuti tuuti dugg nañu ci daara ji ay weer kon du luñ ñuy nettali kon ñu ngi leen di soññaat di leen gërëm bu baax di ñaan yàlla mu yokk barke bi yokk wërsëg bi yokk xam-xam bi yokk leer bi lépp ñu jàpp ci daal ba li ñuy li ñuy mbébét ci mbir yàlla may leen lu ko kawet yi jërëjëf asalaamaaleykum macha allah macha allah